tedd bi muy liggéey soxna jaara eh, te Mbàkke nuy sàkku ñaan am ko xam dafa bokkoon ci ñoom doon ci ñaayu xare te yàlla dogal mu jiitu ji muy bàjjan Sooda Sàmb yaayu Pape Demba nekk fële ci Touba Toscana ñu ñaanal ko suñu borom doole ko ma nekku njëgal sëñ Babacar Diouf mii nag eh, moom la jox seen kàddunu mooy daayira soxna jaara mu war ko yëkkati ci tuuru soxna ami Sàmb dafa am ngànt dem Sénégal waaye soxna Jéeme Thiam moo ko fi teewal kon sëñ Babacar bismillah aousubillahi min asheytaani irajim bismillahi rahmanirahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh uh, sëriñ Maam Mor Mbàkke ñu ngi lay ziar di la ñaanal suñu boroom gën la fee yàggal te li ngay liggéeyal sëriñ Tuubaa nga liggéey ci ba liggéey ci lu kawe sa njort di jéggalu nag ci kàddu gi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati ni aaday murit daa mayewut bu sa kilifa toogee sa kàddu jëm kaw kàddu gi ñu yëkkati nag dañ koy yëkkati ci turu soxna Njéeme Thiam mi nga xam ne moom la suñu borom subhaanahu wa taala dogal mu jiite daayira suñu maam soxna jaar li tee mu yëkkatil ko boppam nag mooy li nga xam ne lislaam tënk na leen ba jotaayu lislaam soxna wala lu munti doon mënu cee waru cee yëkkati kàddoom mu jëm kaw waaye nag nee na kàddu gi da koy yëkkati yépp delloo ko soxna Ami Sàmb mi nga xam ne moo jiite woon daayre bi di seen woy jur di seen lépp teete leen taxawu leen ci kanam taxaw leen ci ginnaaw te jiite fédération suñu maam soxna jaar waaye di ci fàttaliku rek ni ko sëriñ Mbàkke Mbuub Cheikh Mbàkke Mbuub waxee léegi soxna Sooda Sàmb mi nga xam ne tamit wax dëgg yàlla jàmbaar la woon ci liggéey bi te suñu borom dogal mu jiitu mook bokk yi jiitu yëpp kon dañuy yëkkati nuyoo beeg ziar bi rek teg ko ci loxo seex Mod Fadal mu tegal ñu ko ci sa loxo nga tegal ñu ko ci loxo sa mag ju baax ja sëriñ Muntaxa di ñaan mu yàgg fi te ne boroom xam-xam yi ñooy wax ne ndaw lu ne rek darajaay ka ko yónni moom lay yor tey fii nga toog bir nañu ne ci ndigalam nga fi ñëwee kon boo fi toogee sa toogaay bi mooy toogaayu Serigne Touba. ah di santati bu baax nag di sant tamit mbokk yi nga xam ne bàyyi nañ seen yitte yëpp ñëw fekke si jotaay bi. di yëkkati nuyoo bi nag di ko teg ci sa loxo nga tegal ñu ko ci loxo yi mbokk yi nga xam ne ñoom nga bokkal Serigne tubaa ak nu ngeen mën a càllaloo rek. noonu itam la ñuy nuyoo rek soxna Astu Mbàkke sa rakk ji moom it ànd ak ñoom ci liggéey bi ah, moom it mu teg nuyoo bi ci ci ñu teg nuyoo bi ci loxoom mu tegal ñu ko ci loxo bokki soxna yi nga xam ne ñoom la bokkal sëñ Tuubaa ak ñu mën a càllaloo di la sant bu baax kàddu gi nag cant la rek ak ngërëm di sant tamit fondation si Ahmadou Bamba bi nga xam ne moo leen jàppale ah, di la ñaanal liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy liggéeyal sëriñ Tuubaa ah nga liggéey ci lu kawe sa njort ne wolof yi dañuy wax ne ku yokkul da ngaa waaye sa doxalin ku ko gis xam ni fa sa baay bàyyi woon bu doon fukk la yóbbu nga ko ci téeméer te ñëpp a ngi ciy teg seen bët dama koy wax toujours euh, sa jëmm ji gën naa cee jànge sëriñ Touba fii toog nañ fii ci kër gi sëriñ Mourtala soxla la sëñ Omar Sylla woo ma ne ma jëmal jëli sëñ Mamor bi ma ñëwee léegi maa ngi koy nettali bi ñu duggee ci saal bi buuxante bi tax na boo teguloon sa loxo ci ci miir bi di nga yegg suuf te fi mu ne tey jii boo jógee boo toogee boo ñëw mbooloo mi yëpp sa jëmm jee leen fi indi mës naa la koo wax am ñu wax naan ma li nga wax dama la mës a wax ne euh, buñ dee téeméer 90 sukkuñ jébbalu ci yow waaye li nga am ku nekkalul sëriñ Touba amu ko fi soo yëkkatee kàddu ñun ñëpp ñoo koy jëfe te loolu ci sa waajur wala fii kenn gisagu fi daayira sëñ Murtada te loolu tam ci nga nekk di dox kon liñ lay joxit gis nañ fi nga koy def di santaat yàlla bu baax nag bim ñu mayee ñu mën a toogaat ak yow ji ren ñu mën a toogaat ndaxte ñaari at a ngi nii jotaay bi mënta am te am na bokk yu ñu fi nekkaloon yoo xam ne jiitu nañ defuñ suñu borom lu tax ñu jëlee leen fi ñun defaluñ suñu borom lu tax mu bàyyi ñu fi kon loolu ñu ngi ciy santaat yàlla bu baax euh, di la talalaat suñu loxo rek di la ñaanal di di sàkku ci nga ñaanal ñu euh, jigéen ñi liggéey bii ñu nekk Ah, ñu ngi ciy ànd ak fédération suñu maam Soxna Jaara ndaxte lépp lu ñuy liggéey ci Sénégal ñu ngi ciy dugal seen loxo di ko jaare ci fédération Soxna jaar xam naa pour bañ a guddal kàddu yi kàddu cant la woon rek ak ngërëm goo xam ne moom waroon nañ ko jox rek ñu fe feesal ko ci yow xaj na nañu ñu ko waxee woon sax lott nañ ci waxee ko noona waaye yàlla mi ñu bind xam na ni li nga li ñu bëgg a wax it xam nga ko kon ñu ngi lay ñaanal suñu borom yokk fan wi yàggal la fi ba lii ngay liggéey lislaam nga liggéey ci lu kawe sa njort ndaxte ñëpp teg nañ seen bët di jégaluwaat bu baax nag ci kàddu yi jërëjëf. jërëjëf euh, Serigne Babacar Diouf ci kàddu yi nga xam ne moo jóge ci Soxna Ndiémé Thiam di présidente fédération daayira Soxna Jaara par intérim noo ngi nuyu bu baax Soxna Ami Mbàkke bu sëriñ Soxna Ummi Mbàkke bu Serigne ma sàmba soxna Loote bu Serigne Xaadim Awa ba Soxna Mbène Mbàkke soxna maam Bousso. waaye nag soxna Ami Mbay di présidente daayira Tidiane bi nekk Brescia lii rek mooy lislaam ku ci aaye woo sa morom mu dem wujji loolu la mag ñi digle kon mbay ñu ngi lay sant baax yaag soxna yi nga àndal yépp soxna Fatou Sylla Mbeng di secrétaire général fédération daayira soxna jaara ñu koy ñu te di ko jaajëfal